waaw asalaamaaleykum jërë ngeen jëf mbokk internetu wasaare làmb ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax euh, di leen euh, joxaat seen wàccuwaay te di leen xamal ne rek tey ñu ngi fii ci géejawaay comme niñ ko defee démb ñu ngi woon ca village bu Ngor demoon seeti xeeru Ngor bu olympique da Ngor ci combat bi nga xam ne mu ngi koy dëgmal di ko waajal muy combat buy dox si digganteem ak Mbaye Tine tey nag mbokk yi Mbaye Tine lañu ñëw ci entraînement fekk ko mu entraîné ba pare fas yéene waxtaan ak ñun ñu weccoo rek ay kàddu mbaytu ñu ngi lay nuyu. waaw Serigne Bassirou ñu ngi lay fay. ginnaaw ba sant yàlla julli si yonent maa ngi sant sama ñaari waajur. di sant waa Géejawaay ñetti mbaar Baxdaad Gunaas Guy ga Petersen ñàgg Kolobaan di sant waa Géejawaay ñëpp suñu igri maa ngi leen sant di sant igri nekk Géejawaay yëpp bépp mbër bu nekk Géejawaay am combat maa ngi lay ñaan yàlla na yàlla defal ndam bépp mbër mu amagul combat yàlla suñu borom may la combat waaw mais mbër lan la lu waral nga sedd tey. da ngaa xiif wala da ngaa mar wala lan la. non fatigué rek. ah làmb ji moom gaan dafa métti quoi. métti ci ban côté. non xam rek xam nga tey jii làmb moom. Mhm. boo dee borom jom. na la micro bi jege. ma ne làmb boo dee borom jom. Mhm. ñu topp si ginnaaw mbooloo mbër topp si ginnaaw. Mhm. boo amee combat war nga rey sa bopp. mais yow su ma déggee ni ngay waxee mooy euh, li nga jot a li nga jot a jógee am na lu bari lu mu defar si yow. waaw mooy sama combat bi passé. waaw. am na lu bari lu mu def si man. Hmm. mais mbaa psychologiquement desu desut sa bopp nga koy xalaat foo toll. sama combat bi passé. waaw non man ci victoire laa jógee. ci victoire nga jógee. ah waaw boo yëmbal. waaw wax nga dëgg booy man maa ngi jaawaleeg sa combat ak euh, kii. Euh, dab daan après dab daan jëlaat nga fi beneen combat yaag boo yëmbal. wax nga dëgg euh, donc da nga jóge ci defet dem jël victoire kon instant bi nii yow da nga war a soulager wu mbër. non soulager naa sax c'est que tey fi ma fekkee la rek. Ah. xam am gën a xam mais dama laa fekk nga nëbb sa bopp. waaw. <laughs> adversaire bi moo moo ni toll wala lan la. non du loolu sax xam nga tey jii mooy loolu quoi <laughs> yaa ma làmb làmb dafa doy waar quoi moo tax. Ah. déet mais làmb moom warut yéeme yéeme yéeme. ba nga ñaf ñafale <laughs> ñaf ñafale. maay sa papa boo ragalee ma rey la. yow doo tàppet bax daan nga juddoo gunaas ah, ñetti mbaar. mais sa doom ji daa sedd ah. tey. no man maa ko ni nag dal. ak tey. affaire bi bopp la. Eh. voilà noonu la demee. mais mais <laughs> dinaa ñëw ci yow Maguette <laughs> mais mbër comme li ma doon wax rek nga nëbb sa bopp d'après yow li ñu jot a dégg danga nga wax ne sa adversaire mënul bëre. Mhm. ba pare gis nañ la ngay nëbb sa bopp gis nañ la nga réservé wu gis nañ la nga nga yaru ci combat bi. Mhm. lan la danga wax loolu pour déstabiliser ko wala. no laa mu jeex a laaj. Hmm. comme te moom day topp média rek di wax dama koy bàyyi ak wax ji de ba jour ba man jëflaa seek ak moom te instant bi combat bi ñëw na pare samedi. semaine rek moo ci des. instant jëf rek moo fi des instant wax amatul quoi. mais moom boo seetaanee vidéo bi nee na yow yaa féetewoo wax ji. non moom moo féetewoo wax ji. man heure bu heure su may seeti rek moom laay njëkk a seeraan ma dégg lu muy wax ma tontu. Hmm. mais yow attaqué ko attaqué woo ko benn yoon. non attaqué naa ko mais moom tey moo ma gën a attaqué. Ah. attaqué nga ko bu baax sax. bu baax parce que loolu bokk na ci li ko merloo. waaw mais mooy yoon man damaa bëgg mu mer damaa bëgg mu mu siisu. waaw mu sans jour làmb ja mu ñëw. non mbay bu changé est dina baax. no garaaw man man man ragaluma loolu baa jëli. Hmm. mais ñu gis <laughs> ñu gis aussi différence de euh, kii bi gabarit bi waaw taay bi mu sut la lu baree baree bari loolu yàgg ngay am adversaire yu mel noonu wala. waaw waaw bi mooy waaw man bëri naa jarbaatu Bombardier. Hmm. jarbaatu Bombardier euh, mbuur la jóge saa coombe moo ko sut fuuf. Hmm. waaw géant la de ñaabu ndaw mi nii rek booy bee sutu ko. moo moom rek laay bëreel ak ak ñoom Maguette Seck. Mm-hmm. xam nga ñoom Seyna Dia numéro 2 ñoom Sall Ngaari. Mm-hmm. ñoom kii Sa Jaxaay. non ñooñu moom bu leen ñooñu moom bu leen tudd. xam nga li tax mbër dafa wax lu leer nee na écurie Waalo mbooleem ku fa nekk moom moo la dàq bëre. loolu la wax waaw. waa léegi loolu la wax. waaw ba jour ba na ko dëggal. nee na ay ñoom Maguette Seck ñi lay jàpp jàppaleeg. tudd na ba tudd kilifa ga sax <laughs> waaw ñoom ñëpp nee na ñoom ñi nekk olympique de Ngor di ko entraîné ñoo dàq bëre ñoo ñu téeméeri junni yoon. man man man dañ maa yar di ma tudd kilifaam xam nga tey jii nee nag bu jëm seeraas. moo ko dal. Ah. yéex dee gaaw dee. <laughs> instant yi moom moo la gën a xam ne bu jour ba la 15 day tëdd. moo tax fi mu ne moo tax mu fiir wax ji lu ne mu ngi koy wax. Hmm. instant dafa tiit. jël ay dem naa kër mbay tiit nag. bund ko ñoom mbëj sango faak lu ne mu wax yooyu noonu man yooyu noonu mooy loolu la ba jour ba ngay xam ne yooyu noonu amul sens maa ngi la ci biir géew bi mais loolu ger la nag guerre moom bëri dañuy waxante lu ne non guerre la man ma guerre la waaw loolu problème de man man du ma ragal de ragalu ma loolu de mais mais yow xanaa xanaa xanaa ñàkkoo sécurité ba mbër ñëw ba sa bundu kër sangoo fa te doo ko yëg ah, ah kii kii day sooba kii kii sañul loolu eh. kii sañul loolu sama booy duñ tëdd sama buntu gaal la ñuy toog bay 5 heures du matin 4 heures du matin ñu soog a dem tëdd. Mhm. ki sañu loolu billaay sañu ko. mais Mbaye ni ma lay déggee ngay waxee nii combat bi da nga koo jël au sérieux dama ko jël au sérieux kay. waaw te mais yow waxoo loolu yow da nga ne da nga ne sa waay mënut a bëre. sa waay mënul bëre kay sa waay mënul bëre. sëñ Bas waaw ku mënul bëre nga bëre sa waay léegi yow damaa bëgg nga xam ma combat am bar mbër la Moussa daana ci bëre da nga naa ma mbër mi la. ah moo daan Koña 2. na la daanee Koña 2 Koña 2 doxadoo song mu boofu ko waaw si mais loolu ci làmb la bokk. bu Kogna 2 moo nelaw rek. njool njool njool njool njool man du ma Kogna 2. Hmm. man du ma ñoom duñu man mais yaa ngi doon wax lu am solo njool njool njool kenn du bëreeg moom noonu. donc ni ñu war a bëreeg njool xam nga ko. Hmm. léegi léegi léegi la xam gis nga may contact. Hmm. saa naa ma del song. waaw mu na ko su song day leer. ndax song day leer. waaw waaw. moom ay songam du leer. non non kooku du song. <laughs> kooku kooku man su ma ko dégloo si làmb dañuy machine ndax kooku du hmm. song kooku loxoy rek la yaakaar. ko waay kooku gis kombaam kombaam yi muy song yëpp dañ koy daan. Hmm. song na Papa Yade. jégal micro Papa Yade ko. waaw ñun déedéet mu song boobu jo Boy Diop Boy Diop ko. Siri jàmm gën pakate ko sànni fële. Hmm. deux siga euh, daan ko jël bu rëy. kon koo xam da xamuma. waaw. mais moom du dara sa choix la woon bi nga koy jël dafa fekk nga bëgg ko wala dafay sësoon. non dafa saison quoi. Hmm. waaw ndax ay man yeneen adversaire laa bëggoon sax. non dañ koo ragal. waaw moom loolu la wax waaw nee na nee na bëri dañ koo ragal. léegi Matar Ndiaye woo ma. waaw ma ne ko xeeru mar ko ma fay xaas ma jël ko. Hmm. ñu waxaale ba jiboo mu jël combat ma daan se samay mbokk samay staff samay grand ñoom Maga Seck ñëpp ñu jël combat bi ñu siy liggéey xam nga di ko waajal fépp. mais moom it nee na combat bi nekkutoon suwaam. yow da nga fee sës rek moo tax mu bëgg laa boole ci lim bi. loolu la wax waaw loolu la moom mooy bokk ci lim bi. Hmm. lim bi moom moo ciy bokk. kon daal da nga fas yéene tegale deuxième victoire. waaw incha allah rabi le 15. waaw dinaa ko daan jël bu rëy incha mais Mbaye Tine mu nekk combat boo xam ne nii aussi combat bu décisif la. Uh-huh. gis nañ euh, fi nga jóge ci victoire nga jóge mais aussi ci saison bu tëj moom nga jóge am na ci yu bare baree bare yoo xam ne day gàllankoor mbër ba bu ñëwee ci biir arène bi. day am lu ko manqué ci wàllu condition physique ci wàllu entraînement bu doyut parce que combat bi dañoo ubbi rek. ñu jàpp combat bi. loolu noonu dana la handicapé wala yow pour yow pare nga. non man pare naa man ba ma bëree man ñu tëj. man la 17 laa bëree. waaw waaw semaine kañ la tëj nekk juillet. waaw waaw. da ngaa bëree rek ñu tëj. damaa bëree mu tëj matu sax un mois ñu indi laan ma avance. ñu tijji rek nga war a bëreewaat. waaw ma war a bëreewaat. ah mbër macha allah xew nga de. non non du loolu sax xaw ma sax xam nga tey jii làmb moom. boo ci nekkee moom promoteurs yi moom yaa ma gën a xam ñoom seen arrangement la ñuy xool man a may jaay billet man loo ma josu bolog mu naa ko jaay sant kan mooy jaay billet yow waaw non nag non yow yow dafa mel ni seetaanu interview yi bi xeeru ngor amul supporter instant bi instant bi daa metti waaw ah. ndax mi ngi naan Matar Ndiaye man su may bëri arène ay car vingt cinq mille lañ may fayeeku mhm. mu naan bu dee Ibamar ay car moins cher laay fay ñun mhm. nag géej waa lañ dëkk dañuy añ ba pare naan lëwal deuxième ràcci soog a dem stade. moom nee na jënd na pour l'instant un million agum ay ticket. man tamit un million billet laa jënd wol Matar Ndiaye nga laaj ko mbaytin ñaata ñaata bloc la jël. mais mbaytin kon yow da nga fas yéenee defanteeg sa adversaire ci kaw tribune bi ak ci biir géew bi. non nee naa la jour ba bindal téere maa ko ëpp suba bu dee supporter. waaw ah. jour ba maa ebu ëpp supporter fuuf kooku amul mbooloo. Ngor la dëkk de Ngor. Ngor la dëkk waaw Ngor la dëkk non mais day mobiliser gis nañ ko ni mu doon def Iba Mar Diop. Iba Mar Diop doon duy ba mu fees yow Ngor xam nga ne ay français fa nekk. ah mais ay français yu bëgg làmb. Ngor Ngor bu ru ete. waaw ah doo fa gis nit. Eh, yow loolu leer na la. déedéet waay. ah foo ne Ngor <laughs> Ngor ak Almadi. ah ñoo dend di ay wakaam. Mhm. xam nga ñooñu ñooñu ñooñu gëmuñu làmb. kon na nga bëgg ne waa Géejawaay ñoo gën a gëm làmb ka waa Ngor. suuf Géejawaay banlieue bi ñoo moom làmb. Hmm. banlieue bi ñoo moom làmb. te stade dañoo jege macha allah. Pikine ak Guédiawaye benn la à domicile la moom. tëli moo dox suñu diggante. Mhm. dañuy su may génn stade damay yéeg sama oto ànd ak supporter ndànk ràmba stade incha allahu rabbi. Mhm. mais moom ci adversaire bu bu bu bu am taay comme moom gis nañu dab daan euh, combat bi nga bëri ak moom. Mhm. presque bokk na ci li la muy taay bi. nga amaat xeeru ngor même taay aussi foofu est-ce que yaa ngi ciy liggéey. maa ngi ciy liggéey waaw moo tax may contact xeeru ngor bari baam Bamba damaa juumoon. yow sa papa ji da yokk fit de. non kii kii sama papa la sama lépp la combat moo ko jël. combat bi combat am la quoi moo ko jël. sama boy bi tamit maa ngi koy ñaanal ndam dafa am combat rek baax. Mhm. diggante ma Babsi VIP le 27 novembre petit moo ko tëgg. ok waaw. waaw waaw waaw moog Babs VIP wax nga dëgg. ci arène nationale. arène nationale moom lamb ji moom la ñu toxal arène nationale. mais pardon rek nga paasal ma micro sa pap ma laaj ko tuuti rek. mais maa ngi ñaan yàlla ah. non damay dellu si waat ci yow waa CNG waa CNG. lamb ji na nga yóbbu dimanche dégg naa combat mbay guy gi armé. amatul nañu jox dimanche bi ñu bëre ko. looy taamoo dimanche bi. non si lamb dimanche moo dàq ñu. damaa bëgg stade bi damaa bëgg wane sama bopp incha allah. waaw baax na loolu dinañ ci ñëw. mais Maguette. Maguette combat bi lan moo tax nga jël ko waaw combat bi kii dafa tardé si làmb hmm. nega ni bu làmbam waxoon dëgg nega yeneen mbër ak yeneen mbër la ñuy wax ay ñoom mbay guy gi la ñuy wax ak yeneen mbër ñoom la war a bëreel mbay guy gi man meen waaw kii bu làmb waxoon dëgg du xool ñoom béy guy gi waa mais làmb nag moom moo waxul dëgg lan moo ko lan moo ko tardeel ci làmb lan moo ko tardeel si làmb non làmb tamit day at toll moment yoo xamante ni xam nga soo nekkee xale hmm. amoo kenn ku lay wàññi di la wax defal lii bàyyil lii defal nii su boobaa sa fukk rek ngay demee di jël combat yoo xamante ni baaxul. dëgg tax nag xam nga moom bi mu tegoo ci raay bi nag nekk ci ay loxo yoo xamante ni yu leer la ñun komba kii komba bu mu jël bu mu war daanoo dinaa ne ko combat bii kat boo ci deful boo ci farluwul di nga ñàkk waaw mooy loolu daal wax baaxul yàlla bu ñu cat jiitu quoi. léegi yow combat beeg xeeru ngor lan nga ko wax. combat beeg xeeru ngor lamb la comme yëpp rek. na ko respecté comme ñu respecté lamb yëpp rek mook tab daan nag loolu du lamb lamb joo xamante ni moom li ñu ko digaloon lépp defu ko moo tax làmb ji demee noonu billaahi wallaahi wa taala làmb ji du mës a demee noonu parce que bu dul dara moom màgg na si làmb loolu première grand combat am la woon xam nga mu am nu mu bëree indi mbooloo bëgg a teel a libéré yi xam nga am nu mu bëree loolu rek moom moo tax. mais bëri na fi bëriwaat na fi grand combat ñëw wane ni carrément lii damaa juumoon. combat bi confirmation la rek wane ni xam nga li nekk si kanamam kii waru ko ko yàqal te kii ko waru ko ko yàqal koo xamante ni xeex la ñuy wax si yow te xeex bi ngay xeex jaaru yoon kooku war na mën war nga kooku du du adversaire bu tax ñuy wax. voilà làmb ji moom seere la xam nga mooy loolu daal kii moom isam su ko xoolee ba kii du ko téye xaalis bi mi ngi si kanamam hmm. isam lu ma te kii waru ko ko xañ hmm. waaw làmb da ngay toll moment yoo xam millions yaa ngi sa kanam te kenn waru la ko mën a xañ hmm. du doomu aadama bugg ko war a xañ voilà bu dee ci taay njool ay ñaabu ndaw ay ay ay ay ay ay kii nu mu ay mbaytin ñoo ñëpp lay kontaagal te ñooñu noonu ñoo gën a njool kële kon làmb ji daal xam nga na def li mu war a def rek suñu borom mi yor sutura yàlla na ko yàlla may ndam sonn na ci combat bi dañ sa ay coono dañoo bëgg na géejawaay gépp ñëw jàppale ko jàppale euh, kii bi nuñ koy wax teel sax ah, mboo booloo bi ñu wax ci ak géejawaay isam lu ma la cent pour cent bi nekkul ci mbër yu mag nekkul ci kenn booy ndaw yi bu ñu amee komba na si nit ñi ñëw jàpp nit ñi génn ñëw dem stade isam la ñu kenn dara na ñu ñu ñëw jënd billet yi jënd ci billet yi jënd tiset yi ñëw dem stade rek la ñuy ñaan xam nga di ñaanal orka yàlla bu ko cat jiitu yàlla na ko yàlla may wér ak wér la ba bis ba mu ñëw def confirmation parce que moo war a tijji moo war a tijji géejawaay na ñëw def fulo ak fayda yàlla may ko ndam te liggéey na loo xamante ni njort nañ ni yàlla dina ko may ndam waa di woo ñëpp di wax ñëpp ne ko ñëpp jàppale parce que mbër la boo xamante ni yaakaaru géejawaay la hmm. mbëru géejaw comme ñu mbër mag yi ñoom Balla Gaye ñoom kii ni nekkee yaakaar noonu la orka nekkee yaakaar di ko ñaanal yàlla na eggale yoonam ak sagoom hmm. parce que lii la rek isam lu ma la hmm. ñoo xamante ni da ngay napp sa morom di napp te seen gaal du laalante war nañoo mën a yéenante jàmm ñun ñëpp ay champion lañ champion nag isam nekkul ni xam xañ sa morom champion mooy tax nga nekk champion jàppale sa morom mu nekk champion mooy tax nga nekk champion affaire yi loolu la rek orka yaa ngi si yoon isam lu ma la kii warula téye géejawaay gépp ñuy sayu kaw billaahi wallaahi wal taala te xam naa ne man mbër dëgg nga kenn mënu la soo gëmee sa bopp mbër yi ni lim géejawaay dañ ciy bokk waaye yal na la yàlla suturaal lafal la cat may la wér ak wér la may la kàttan ba combat bii nga jugee jël bu gën a gaaw boobu nga am ko ci kàttanu yàlla may képp koo xamante ni yaa ngi géejawaay am combat yàlla na la yàlla may ndam képp ku nekk géejawaay amoo combat yàlla na la yàlla may combat nga am si ndam mhm. bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam orca vive ñun ñëpp ñu sa ginnaaw jaajëf dinaa ñëw ci sa yëfi bopp bu ñu paree beneen yoon dinaa ñëw ci sa yëfi bopp parce que yow Maguette war nañoo waxtaan bu baax <laughs> mais Mbaye Tine Maguette euh, dafa mel ni yeb na la bu baax moom moo jël combat bi mhm. combat bi ñëpp a bañ maa ngi segg ne eh kii bu mënta daan xeeru nga na bàyyi làmb ndax xam na ma xam na samay qualité hmm. yaa may dégg xam nga te li mu wax la ko waa man maa bokk si làmb sëñ Bas làmb moo xul dëgg war na fekk may bëreeg ay ponkal si kanam bari hmm. Serigne Bamba mais sant yàlla rek incha allah maa ngi maa ngi koy ñaanal nag jàmm maa ngi segg sonn si combat bi tër di ko ñaanal ndam si combat mag wóos jàmbaar hmm. bilaay walaay combat woo la ñuy waajal bu borom nañ dugg fépp entraîné incha allah yàlla defal ñu ndam. xeeru ngor nee na nga xeeru ngor nee na nga génn ci fameem. nee na nga génn ci fameem. fameem comme na lébu yi. non nee na da ngay dugg ci fameem ay vie privée affaire yooyu noonu. waaw mais mais mais mais moom moom mooy moom mooy dugg sama vie privée. moom mii naan ay ay ñëw naa gàlla mbaytin sango faak lépp mu koy wax naan di ma jëm a jaxase sama gars yi mënu ko. samay ni mënoo ma jaxaseeg ñoom lu leer laa la wax. mën a ñooñu démb la yow maa yow moo ñu boole bu jeexee jeex na kon jarul yéen nii te bu jour ba li ngay wax ni na nga taxaw dëggal sa bopp waaw bu dee góor nga bu dee dee góor nga li ngay wax ni na nga taxaw dëggal sa bopp waaw maa ngi sant sama gars yi may jàppale ñëpp ñi ñëw di ma jàppale contact ki si mel ni ñoom Déja ñoom Rekoba Magat Seck ñoom ñaabu ndaw Modou Sa ñoom Madje Madje cat bu waalo boo yëpp dañoom combat booy essane géew yaa maa ko yóbbi comme ni ko Magat Seck waxee géew yaa gépp maa grand combat le 15 incha rabbi maa ngi ñaan yàlla yàlla na ma yàlla defal ndam képp ku bépp mbër bu dëggee am combat yàlla na yàlla may ndam muy mbër mu ndaw muy mbër mu mag si kàttanu yàlla waaw maa ngi maa ngi woo maa ngi woo ñi may jàppale ñëpp Tamsir soxna maa ngi lay woo si combat bi nga jàppale ma ci biir yi bookum hôtel Salim maa ngi lay woo ci combat maa ngi woo waa Petersen waa Kolobaan mam góor maa ngi koy woo si combat mam góor borom góor yombul maa ngi koy woo si combat mu jëlal ma ay boloku biir maay woo may sa sant yàlla butik ndonga maay woo sama doomu ndey sama xarit Birane waa borom borom kër ba Basiirou kaay sañce maay sant ñoom ndongo Kolobaan waa Peter ñoom grand Cheikh Ndiaye sama gars yi ñoom Amed loo yaa may dégg hmm. saal may internet waa GSP maa ngi leen sant bu baax ñu ngi may jàppale di ma dooleel maay sant képp ku dëkk Guédiawaye rek maa ngi lay sant di la gërëm di la wax nga jàppale ma ci combat bi Lat Diop maa ngi koy woo si combat bi Ala Ndiaye sama xarit sama doom yaay maa ngi koy woo ci combat bi xam nga maa ngi woo Ahmed Aïdara ci combat bi pour mu jëlal ma ay bologu biyee bay di ba maa ngi koy woo si combat maire bu Gunaas Andaw Ndiaye maa ngi koy woo si combat mu jàpp si yaa may dégg mhm. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp Gunaas maa ngi woo ñëpp Baxdaad maa ngi woo ñëpp guy ga maa ngi woo ñëpp marché samedi marché bees marché njaareem giwaay gépp maa ngi leen woo su ma limee damay juum écrit yëpp maa ngi leen woo incha allah le 15 ñëw dooleel ma kon rendez-vous le 15 waaw rendez-vous le 15 incha yàlla na yàlla defal jàmm xeeru ngoor jaajëf Mbaye Tine jaajëf Mbaye Tine Junior ñu ngi lay jaajëf baax di jaajëfal waa euh, écurie Waalo bi yëpp ak waa Géejawaay yi nga xam ne ñoom lañ fekk tey fii nii ci géej gi jaajëf mbër